ak frappe du benn de. dóor la fee du dóor. li ma wane ci bëre dóor franc wane ko ci bàyyi leen chaque jour ngeen di insister sax di ma wax ci franc kese parce que man tegu ma ko bët bàyyiwuma fi kenn man damaa bàyyiwul kenn ci làmb boog pour mu leer maa ngi fi pour mbër yëpp képp ku amateur yi bëgg promoteur yi taxaw ci bu sottee ma bëre ak moom. sa diggante yaa mbay mbéy guy gi tamit daan nañu ko dégg euh, keroog ñu gis mbéy guy gi ak Zarko waa RTDK décroché seen combat ñoom ñaar lan moo dàq ba bëre woo sa diggante yaa ki nga xamante non mbay guy gi am na combat du ma nekk fii di wax ci ay mbay guy gi am na combat. avant bi daal nañu dégg seen coow yéen ñaar. mais avant combat boo amee combat kay jaratul ñu ci wax mbay guy gi champion la yàlla na ko yàlla defal jàmm mais du man ak moom. moom. waaw mais ñu ngi si yàlla na sotti Moussa Ndoye champion la waaw ñooñu man mun naa leen tëkku ndax ñooñu def nañ ci làmb lu ma deful ci làmb mais koo xam ne def naa ci làmb loo deful ci làmb moom du ma la tëkku. Moussa Ndoye lu mu lu ma wane si làmb nga taxaw tey ne naan ma mën naa tëkk Moussa Ndoye mais mënu ma tëkk waaw parce que Moussa Ndoye moo gën palmarès moo ma gën man mii di wax ak yow bëri na ak nga xam ne man damaa bëgg a ñoom. daa mer temps yi de. waaw mais garaaw la amul man bañu ma mer mais boo meree tamit doo ma def dara. da nga dem du Moussa Ndoye di sàcce. non garaaw la amul problème man moom xale laa te yàlla dogal na man xaw ma fu ragal di nekk si nit. moom loo ragal mais tamit ku Sokh dafa dafa jël bëtam yëpp sibile leen temps mu bëreeg ñoom mais temps mu bëreeg ki nga xamante ne mooy Mbaye ak tant d'autres nga sibile ñee est-ce que du nekk risque si yow waaw man ñooñu war a bëreel moo tax wax dëgg fa yàlla bu nekk loon kalaaf bi ma bëre kon heure bi ñooñu laay bëreel mais santaat na Serigne Touba bu baax loolu lu waroon jaar sama carrière la weesu na maa ngi xool li sama kanam di ñaan yàlla defal ma jàmm ak tawfiq defal ko mbër yëpp nag contacté aw ma problème boobu xëy na adversaire a sotteegul non du ma fi tudd benn mbër mais ñu ngi may dox daal en tout cas ñu ngi dox maag mbër yi bu ci sotti di ngeen ko dégg incha allah. maa lay fay di la siyaar. tey teewaay bi lan la. ah ñëw seetaan suñu mbokku sénégalais suñuy frère di leen ñaanal yàlla jox leen ndam li rek ci barki yonent bi. mais mbër dafa am lu ñuy taxaw seetlu dafa am lu ñuy seetlu keroog. Euh, bëre Ada Fass ak Tapha Mbeur bi nga dugg see si stade bi macha allah yëngal stade bi mais da nga dem ba si côté tribune bi. yuuxu di laaj ki nga xamante ni mooy Franc lan moo waral loolu. non laajuma Franc de dama ñëw ambiance laaj ponkal yi nekk ci stade mais tudduma turu kenn. gis nañ la ngay joxoñ Franc si kaw. non joxuñu ma kenn dama ni ponkal yëpp nañ wàcc ku ñeme rek na wàcc tudduma turu kenn soxlawu ma Franc tey soxlawu ma ko suba déggoo li ma lay jour koo xam ni maa la ëpp ay combat ëpp la ay victoire. aw ma lenn lu may toog naan kii laa soxla wala kii laa soxla bu may soxla du ñooñu laay soxla daa daan Tyson 2 ni Pikine amuñu mbër mu ko mën a daan loolu rek laa ko doon confirmer mais laaju ma Franc tey laaju ma ko suba maa ko gën palmarès ñaari yoon koo gën palmarès nag doo wëlbatiku di ko laaj laaju ma ko de. mais si tamit nekkul wax ba nga ñëw stade keroog di jaay wane sa bopp di ko di ko expliquer naa ko wàccal ponkal bépp ponkal bi nga xam ne mi ngi si kaw rek wàccal ñu nga doon xale ñu doon xale ñu def ci làmb loo deful ci làmb nga taxaw ni Pikine amuñu mbër mu la mën a daan loolu wax ju yàqu la. pour jot si yow. non loolu yëpp garaawul ndax xam ma lu tax man du ma rankiñee du topp rankiñ li wér mooy maa ngi fi pour ñëpp xale bu ñu naan dafa am doole rek bàyyi ma ko fi képp ku ma làmb boole rek dinaa bëreeg moom ci kàttanu yàlla. mais doon ay risques xale amul luy nekk risque ci moom lamb xale daa am risque ñun duñu ay paa di ay xale lañ di Franc xale la may xale di mu am lu mu mën ma am lu ma mën ñi nekk ci ginnaawam yaakaar ko ñi nekk sama ginnaaw yaakaar ma loolu amul risque lu ban risque ci am Franc champion la man champion la si bëri bi quoi lay wax si bëri bi moom nit avec frappe la gën mënee Sénégal ceinture rouge Gambie ceinture bleue luy am luy am da daan wër na ko wër na da koy daan daan na ko daan na ko Sénégal am na ndam si kaw Gambia daan na ko jël Moussa Faye daan na ko 66 kilos Moussa Faye daan na Aboubacarine Keita rouge Gambie en faqat faqat na ko faqat na ko da koy daan da koy daan faqat wër na ko wër na ko daan na eh, jaay na doole daan na ko jël bu rëy <laughs> waa Sénégal yi gars yi seen yaram dafa tàng gars yi seen si Amoura Sarr ñaari mbër yaa si géew bi ñu ngi jàppante bu continuer nii Sénégal bi mooy gagné bu leen fàtte nii mbëru Gambie bi am na deux avertissement jël na tànk bi tegaat. signalé na ko luy am ñoom ñaar ñëpp lay jox avertissement bëri na rouge gagné na rouge gagné na sénégalais bi gagné na 3 pour Sénégal 0 pour Gambie si 100 kilo bi bi mooy 100 kilo 100 kilo bi diggante Sénégal ak Gambie quatrième combat arbitre bi sifflé na ñaari mbër yi ngi lewatoo ñaari mbër yi ngi lewatoo brassement de bras song amagul jël amagul teq amagul dara amagul